dal leen ak jàmm fexe ba fekk atum 2030 Sénégal am lu ñu duppee souveraineté pharmaceutique maanaam bépp garab boo xam ne dañu koy fajoo ci réew mi ñu ko fiy defaree Teranga Pharma nag nee na dab boobu leen bëbët moo tax mu taxawal bile concept ñu duppee prescription conseil et consommation responsable docteur Mouhamadou Sow mooy directeur général bu Teranga Pharma. li ñuy fi ñu boole tey mooy doon waxtaanee lu ñu Teranga Pharma tuddee prescription responsable conseil responsable ak. consommation responsable ndaxte gouvernement Sénégal dafa liggéey ci ci Covid bi Covid 19 bi jeexee dañuy gis ni Sénégal li muy defar ci garab bariwul te bu problème amee ñëpp ku nekk day xaar sa bopp comme li ñuy def ci garab nag bariwul il était normal que ñu toog xool dooleel entreprise fi nekk mais également xool ba nga xam ni dinañu mën a fexe ba nga xam ni li Sénégalais di lay consommer ci garab ñu defar ko ci dëkk ñun Teranga Pharma décidé nañu pour def souveraineté pharmaceutique moo tax ñu ne nag li ci des nag mooy sénégalais yi di jël garab yoo xam ne fii lañ ko defaree mais di leen wax ne garab yooyu qualité ñu ci def même qualité la ak qualité bi jugee bitim réew parce que médicament bokk la yeneen produit médicament bala ñu koy jaay biir farmasi dafa am direction pharmacie nationale moom mu koy saytu ba xam ni qualité bi wara a nekk ci biir mi ngi ci te du lor kenn ba ñu koy jaay bi pharmacie donc garab yi ñuy defaree sénégalais même qualité la ak garab yi jóge Europe ak Amérique. ci jamono ji nga xam ne nag ci téeméeru garab ñuy jëfandikoo fii ci Sénégal juróomi fii lañ koy defaree seen xemmemteef moo di fekk at yi di ñëw ñu fexe ba ci téeméeri garab yu ñuy jëfandikoo juróom fukk yi ñu koy defaree fii ci mim réew. donc moo tax ñuy wax sénégalais yi ñu bëggee Sénégal souveraineté pharmaceutique il faut ñu changer attitude di consommer produit jóge fii ndax loolu mooy tax liggéey Sénégal yokku mooy tax ñu wàññi rupture de produit mooy tax ñu wàññi également médicament de la rue médicament ñoo wàññi également njëgu garab yi ba nga xam ni képp Sénégal ak doole ba munti am di nga am garab bu baax bu la mën a faj ak feer ba munti am. mbokk déglukat yi fii la yem ak ñu yendoog jàmm.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 Bonjour à tous et bienvenue. Assurer la souveraineté pharmaceutique du Sénégal à l'horizon c'est la vision de Teranga Pharma, un objectif qu'il veut atteindre à travers son concept prescription, conseil et consommation responsable, comme l'explique ici le docteur Mohamedou Sow, directeur général de Teranga Pharma. Le but de cette rencontre d'aujourd'hui était de traiter un nouveau concept que Teranga Pharma a conçu suite au lab Euh, le lab a travaillé sur euh, la production, euh, la création de, de, nouveaux acteurs industriels, mais n'a pas très bien traité le marché. Et nous, en tant qu'acteurs industriels, nouveaux acteurs, ayant travaillé sur la souveraineté pharmaceutique, qui est aujourd'hui la priorité du gouvernement sénégalais, était important d'étudier les facteurs de succès de cette souveraineté pharmaceutique. Et pour réussir cette, souveraineté pharmaceutique, il faut que ce nouveau concept qu'on appelle la prescription responsable, le conseil responsable et la consommation responsable soient une réalité pour les Sénégalais. Aujourd'hui, le médecin, il est souverain dans sa prescription, le pharmacien, il est souverain dans son conseil et les Sénégalais également doivent suivre les conseils de ces pharmaciens. La qualité des produits ne souffre d'aucune, d'aucun problème. Nous avons la qualité requise. Il y a une commission nationale Donc ce qui reste à faire, c'est que les médecins puissent prescrire les produits qui sont fabriqués au Sénégal par production locale de 5%, l'objectif est d'assurer une de 50% au niveau national. Ce que nous attendons des Sénégalais, c'est au niveau du par rapport aux pays, euh, par rapport aux produits d'origine étrangère. La Covid-19 nous problème, chacun compte sur lui. Donc le Sénégal doit compter sur lui. Et aujourd'hui, nous avons de production nationale. Il est important de passer à et pour cela, il faut que les Sénégalais consomment les produits fabriqués localement. C'est ce qui permet de consolider les emplois sénégalais, ce qui permet de diminuer les ruptures des, produits pharmaceutiques. Ça permet également de diminuer le coût des médicaments dans un avenir proche. C'est tout pour aujourd'hui.